rahmaani rahim ñoo ngi fii ci kër sëriñ Basiru ànd ak sëriñ Moustapha eh, ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine yépp ñu teew ci kër sëriñ Basiru ngir siyaar ko ci bis bi nga xam ni bis la boo xam ne mm, noo nun ak moom ñoo ko bokk ndax dañ koo bokk ci fànn yu bari ndax wax naa ko léegi diggante sëriñ Baara ak sëriñ Abdul Xaadir ñëpp xamoon na ko te it njabootu sëriñ Baara gi fi nekkoon jamonoon teeg moom jëflante woon nañ kook moom ba ñëpp xam ko itam. wante njabootu sëriñ Abdul Xaadir gi nga xam ne ñoo fi nekkit tombe ak Cheikh Sidi Muxtaar jëflante nañ kook moom itam ba nga xam ne ñëpp xam na ko rawatina nag sëriñ basir ma nga xam ne sëriñ bi daf ko jëloon teg ko ci kanamam. ni ko yaay samay tànk yaay samay loxo yaay sama bët ak yëpp mu mu taxaw ko taxawaay bu mat sëkk sëriñ bi itam taxaw ci gannaawam taxawaay bu taxaw ci kanamam taxawaay bu mat sëkk mu doon ànd boo xam ne àndum ngor la àndum jiine la waaye àndum mbokk la itam bi nga xamee ne yàlla dogal na sëriñ bi ñibbi itam wàcc ab liggéey bàyyi fi njaboot gi njaboot googee génnewul loxoom benn yoon ci ñoom moo waral teewaay bi nga xam ni booy xool néeg bi tey ñi fi nekk ñëpp foofa la ñu bàyyi ko kon loolu daf lay won rek ne relation yooyu nga xam ne mag ñi jëmbatoon nañ ko mu tàmbalee ci sëñ Abdou Khadir ak sëriñ Baara ba wàcc si ci njabootu sëriñ Baara ak ak ak ak gi ak sëñ Abdou Khadir waaye wàcc si ci njabootu sëñ Abdou Khadir ak sëriñ Sidi Muxtaar loolee njëmbat loole ñu ngi koy suuxat ba tey jii moo waral suñu ay tànki sëriñ Moustapha fii tey ànd ak njabootu sëriñ Baara gi yëpp. ndax sëriñ Basiru digganteem ak sëñ bi képp ja jar na ñu àndandoo def lii ñu def ndax juróom-ñetti at yi mu fi nekk yëpp daanaka mën nañoo wax ne euh, lépp ci lépp la ko jiital mu yaatal ci ñëpp itam di ko dox na mu ko waree yaatal ci ñëpp bi mu ko wanee bi ko sëriñ bi wanee ginnaaw it terewul mu nemmeeku njaboot gi di leen xool ñoom itam ñuy ñëw ci moom di ko nemmeeku kon nag sëriñ Moustapha dafa wax ne loolu dong jaroon na. njaboot gi yëpp àndandoo ñëw waaye rawatina sëñ Abdou Khadir ak sëñ Baara waaye rawatina diggante njaboot sëñ Abdou Khadir ak ak ak ak Muxtaar ndax bu jëlee sëñ Alaaji ni ko jiiteel ci Touba jël sëñ Moustapha ni ko jiiteel ci ndakaar jël sëñ Basiru ni ko ni ko yaay samay tànk yaay samay loxo loolu won na ne toogaayu Cheikh Sidi Muxtaar sedd na ci njabootu sëñ Abdou Khadir ba mu mat sëkk te loolu dara waralu ko lu dul li ma wax léegi rek. njëmbat la loo xam ne ma nga tàmbalee ci sëñ Abdou Khadir ak sëñ Baara waaye wàcc si ci seen njaboot yi ba agsi ci nun ñi toog fii tey ànd ak sëñ Moustapha teew ci bis bi kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp itam tey ñaanal sëñ Basiru yàlla yàggal ko fi yàlla wéral ko waaye ñu sàkku ci moom it ci bis bi mu ñaanalal ñu sëñ Moustapha yàlla yàggal ko fi yàlla wéral ko ak njaboot gi yëpp.